soxna si ana waa kër gi. waaw ñu ngi rek. naka la tur bi. kan la malaat bi. non yow moom yow kay lay wax. man man fay naa dund. yaa ngi Dakaractu est-ce que xam exactement lan mooy jafe-jafe bi. jafe-jafe bi daal néew bi dafa amoon suukar dañ def traitement. léegi mhm. bu ñu demee ba traitement yi jeex ma war a opéré bët yi. Mhm. diggante bi may def ngoon bu jot dama jënd ñaari xaal. Mhm. mu topp ak xaaj bi ak kafe bi ak attaaye bi mhm. mu tëdd feebar ñaari fan mhm. premier jour bi ma yóbbu ko hôpital bi ñu ko yóbbu hôpital ñu sampal ko ñetti bitéel mhm. ñu ko ordonnance euh, ay comprimé fatiguement yi ma jënd ko mu ñibbi ci kër gi ci ngoon bi ñu xëy bopp bi metti mu ne ma sax yóbbuwaat ma ñu continué sama tension ma sama tension bi dafa wàcc ba sama loos bi ma yóbbuwaat ko bi ma ndaw si daal di koy testé mhm. daan ne ko ana ordonnance ma ne ko bi indiwuñu ko waaye garab yaa ngi nii mhm. mu ubbi ci carnet bi xool bi mu xoolee ci carnet ne ko yow sa biir doon daw mhm. mu ne ko déedéet sama biir daw de benn yoon la daw sama damaa ndaw si jël téléphone am daal di woote daan ne docteur benn saa am na fii daal di koy génne yóbbu ko ci saali fi ñuy pointé ga ñu feebar biñ ko fanaanee biñ ñu fa yóbboo biñ ñu fa nit la ñu ko yóbboo ba suba sa cinq heures mhm. la fay doog a dikkaat mhm. dugguñu ñu saal bi contrôlé wuñ ko xooluñu ko mhm. waa ji dikk na da ko def test def test bi daal dem xëy yóbbu ko gont yóbbu ko xëy ba sa cinq heures ga fanaan nañ ko ba sa cinq heures at ga soo dikk daal di génn saal bi yëpp ba mu des ñenn meer bi mu ñëw mu ne meer bi de dañ koy jaam rek Touba parce que dafa am doomu jàngoro bi ma ne ko sëñ bi ma ne ko ku dee yàq sa bak ku dee da nga layoo sa maire bi man mi ko fi indi sax xam naa li ko dal. maire mhm. bi dafa suukar suukaram dafa yéeg. Mhm. ak tension. Mhm. léegi te tension bi ak suukar bi dafa jaxasoo. léegi nag am na nu muy jaxasoo ba day dem ba bët yi dootuñu ko mën a opéré day da koy laa laagaloo. mu naa di ma mu naa ne da koy yóbbu hôpital daan na ma yéen jiitu leen ma indi fi police indi fi docteur yi indi fi sapeur ñu pompe bi maire bi dégg nga daa ñu feebar ñu fi njëkkee bàyyi yóbbu maire bi Darou Manane maire bi fanaan Darou Manane ñu egg di ko rajo ko analyse ba ca suba la. maire mhm. bi woo ma ne ma defaral ma sama bagage parce que ma jàll Dakar ndax sama kooku dafa jax sama tension bi. Mhm. te appareil bi ñu ma war a këppal amul fii. Mhm. heure bii keroog la ñëw fii aminage bi yóbbu ko. boobaa léegi du ñu génn dina yaa ngi ci mbedd mi ku ñëw sa ku dem sa morom di joxuñu lekk joxuñu naan gisuñu dara état bi ñoom. yéen fan ngeen dëkkee sama rakk bu a ngi nii la. fan ngeen dëkkee fan ci Daaru Salaam ci Mbàkke déedéet Touba mhm. Darou Salaam it ko suñu saa faa di kan. boobaag léegi sama rakk nga ni borom kër la mi ngi tëj tëdd. sama papa ngi ni borom kër la mi ngi tëdd mhm. maire bi ñëw bu hôpital borom kër la moo yoroon këram. Mhm. ay doomam xamuñu tum ranke ay sutam xamuñu tum ranke. ki ñuy li mu ñuy dimbalee nee na alalu boppam la ñuy dimbalee. waaye état joxu ko loo xam ne rek ñuy dimbali. indil nañu ceeb benn saako ceeb te ak binoo diwlin. ay meew ak suukar. ba ma ko laaj dépassé dama man damay def te yàlla sax waaye état bi joxuma dara. kon duñu dem duñu dikk suñuy dëkkandoo ñoo ñuy dimbali wala suñuy am ni jàmm lu ñuy woo duñuy dimbali gis ñu dara état bi service bi amul benn sens kon maanaam da leen a quarantaine mais indilul leen lu ngeen waay waay ñu nii dañ ne ko gaayaa ñu ci mbedd bi toog mhm. suñ dëkk dëkkandoo bi nga xam ne moom lañ jàkkaarloo jour bi mu indil maire bi añ bi mhm. bi mu xëyee suba dem marché di jaay jaay ma dafa lamb dafa ñibbi ci waat ba léegi nii waa marché am ko jóge fii dem ca marché ba ne leen diw moo leen yóbbu leen añ bu kenn dem ca njaayam hmm? noonu sëñ Tuubaa ñu dem ca ba tëj maire bi ñu dem tëj maire yi ñu ne jëkkëru maire bi maire la daan liggéeyee mhm. marché sanc yi ñi jiite marché bi ñëpp di di ma di ñu daw di daw suñuy dëkkandoo fi mu ne nii beneen maire bi léegi la mu ne marché bàtte ji ñu jaayee dañ ko dañ ko doon daw tey ba moo ko tax a ñu gisi hmm. amuñu dara nag loo xam ne neex nañu gisuñu dara état bi bu fekkee ne état bi dañ ne moom dañ ñëpp ñu feebar ñu ngi leen di dimbali seen njaboot ñun gisuñu ndimbal loolu léegi lu ngeen bëgg exactement gis lan ngeen bëgg exactement. dañu mën nañoo tëj duñ ñu jox suñu dund. Mhm. joxuñu dépense joxuñu dara. li ñuy dimbali ci ah, poosu boppam la ñuy dimbalee mënuñu tamit luñ manqué di ko wonaan ko lii lañ bëgg parce que moom it ni ñuy dimbalee noonu lay dimbali waate yeneen yeneen yeneen jàmbur. d'accord léegi maire bi. waaw kañ leen kañ leen ko interné woon kañ leen ko jëlee woon foofu yóbbu ko hôpital. ban am nañ ko cinq jours fii. Mhm. juróomi fan. juróomi fan am nañ ko génnuñu soqatuñu defuñu dara. Mhm. juróom juróomi fan te la samedi ñaar fukki fan juróom ci weeru avril. mu ngi